l'unité de la race humaine mooy ñoo ko bokk yéefara ku yéefara ci bokk lii nag ummal islamiya moo ko moom contrat la principe général bi mooy ni ñépp nag ànd ci kaw loolu ñetteel bi tëje ko nag ci Sénégal Sénégal benn ay nit lañu la ëpp ca ñoom ay jullit lañu waaye ñeneen a ngi fet du na ay jullit waaw ñeneen ñu ngi fi ñu ay jullit ça veut ni société lañu am boo xamante ni noonu la yàlla tërale suñuy société noonu la yàlla tërale àdduna nee naa leen yàlla bi nu bind ñun ñëpp amul unanimité su mu ko amee amu ko yàlla ñi ko weddi dëgg ñoo ëpp mais teewul dafa jël jantam bii nga gëm ko ñi ko weddeeg ñëpp boole leen lépp manoo ni ki weddi yàlla doo ko xañ jant bi lañuy jar jariñ yéen ñépp te teewul mooy raxmaanu di rahim kon li nu amal solo ay nit lañu d'abord ñenn ci ñun ay jullit lañu mais bu nu fàtte ni nag dañoo nekk ci réew boo xamante ni jullit ak ku dul jullit ak ku dul ko kon ñooñu lan moo leen war a boole foofu problème bu dee Sénégal dafa am ci lu ñu toog muy la loi fondamentale nga xamante ni moo boole Sénégal nee nañu nit ñi ñëwaat ci diine bu ngeen ñëwee ci charte réew mi ci constitution bi article premier xool leen la réew mi wax wan leen diversité bi am ci société sénégalaise mu ne la République du Sénégal est laïque démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de région. Elle respecte toutes les croyances. ci mooy Sénégal d'abord ay nit lañu jullit lañu waaye ci biir jullit gi li nu yàlla boole nag ci sunu réew ñun fa diversité tey moo fi nekk kon li nu mën a boole te dinaa ko répété waxaat que mais c'est la citoyenneté kon xeexu diine xeexu askan xeexu nangamte dina attirer attention autorité yi am na lu commencé am ci réew mi ci aw nit dañuy jote ñoom ñaar waaye léegi bu dëkk jógee song dëkk ci waaso bay reyante alerte jot na masu xew la xewoon Kirène wax de entre ñaari communauté ndépp di doomi Sénégal ñu dem ba dëkk di songante ay dëkk ma ne benn baaxul ñaareel bi waa tefes gi laa koy wax la ko dale ba keroog ngay dem euh, comment dirais-je buur ba keroog ngay dem ba keroog ngay dem dama bëgg loolu chef coutumier sax ñoo cëpp solo li commencé am ci bi benn baaxu ci bu ñu demee ba doomu Sénégal amul liberté ci biir géej gi Sénégal yëpp bokk nag te démb mag ñi ñoo àndoon sëy naa limam dara napp mu ngi ci taarixam di dem Banjul di dem nangam di dem nangam di dem nangam ñu war a mën a toog ay doomu Sénégal bokk tefes bi dem ba ciy reyante lu jiitu loolu ay chalutier ay bateau ay étranger jël sa richesse ba yóbbu yéen ngeen di jabante paak yooyu ak yu ko niru lu mat a teel a ter dindi la benn baaxu ci du tabu lu ñuy nëbb ay doomu Sénégal mag ñi démb boo fi dem tey ci code bi dañoo sëyante woon amante nangam seeni njaboot nekk fi jaadu mukk ñu naan tey anu waa Kayaar anu waa Gëndar Mool anu waa xale yi anu waa Fass Boy ñu ne ngi xeex fii ci géej goo xamante ni macha allah ca mag ñu njëkk ñi dañoo bokkoon seen lépp kooku ñu ci wax ñu yore coutume bi wa tabaarakallaahu état du Sénégal moom lu jëm ci wàllu ndàngam duñ ci parce que loolu leneen la ci sa mission régal de l' mooy mu assurer la protection des Sénégalais kon loolu rek ci gàttal fi la ñu jëm kon bismillahi rahmaani rahim inna machiata allah qad qadat an yakuna fi alwaanihim wa wa jinsiyatihim wa adyanihim wa saqafatihum wa hum fi lmaamurati muntashirun fi xaaraatin wa aqtaarin muxtalifa lakin allah subhanahu wa taala qad shamilat rahmatuhu alayhim wa hada tanawu yuctabaru saraan wa isran insaniyan kon lépp ci diversité rek la ko yàlla binde moo nu def ngeen ñëw ñu woote ngeen ñëw fii tey ngeen ñi fi teew ñépp bokku leen kàllaama yu ngeen di wax bokku leen fi ngeen jóge waaye li leen boole tey jii bu dee jullit mooy laa ilaha illallah la leen boole ci nitet yàllaa leen boole ci loolu dëkkaloo leen réew mu tudd Sénégal mu am seen réyalité interne mooy yi ma doon wax sànq bu ko defee na fi citoyenneté nekk war a mën a ñëpp kon foofu rekk lañuy fexe di ñaan yàlla ah yàlla na yàlla defal ñépp jàmm ah bàyyi lay al muminuuna kulluhum nag ixwa wa laysa fi lislaami adaawa wa bagdaa waalamu ann diin annasiha walmahaba wa taawun wala tanazawa ila illa ila alhuda wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla na yàlla indi jàmm ci réew mi yàlla na yàlla suturaal ñépp allahuma salli yonneen yàgg na te ngeen gàntoo